te damay wax ni gis nañ démb gaal gi suux waaye démb ci même heure bi gis nañ beneen gaal boo xam ni da doon wàcc ngir dem bitim réew fële ca ndar ci goxu mbaaj ak suñu xarañte force de défense et de sécurité yi may ci profito di remercier armée bi sous toutes ses composantes mais di beral loxo ñii nga xamante ni ñoom ñooy marine bi nga xam ni bëccëg ak guddi ñi ngi am ay patrouille ñi ngi am ay seetlu di euh, def ay bateau yu nekk ci biir géej gi ngir fexe ba kenn bañ a mun a euh, jaar euh, ci yoon yooyu ngir dem bitim réew waaye aussi di beral cant gendarmerie nationale ñoom it ñu ngi ci liggéey ci biir géej gi comme ci joor gi di beral loxo aussi police nga xam ni seen ñaari banqaas dañuy jëf dañuy liggéey ci loolu boo jëlee DNLT muy division nationale

amna ci ñu jugee wetu yëmbal amna ci ñu jugee booru Touba qui ci ñu tamit mais encore une fois nous ñu jotagul la ci ay xibaar de provenance yi fi ñu lolu nous lu la ni mais li ci des dañuy bayyi ba enquête bi avancer, su ñu gën ci jox éléments d'information yu ont bu dee ci wàllu accident bi fi mu amee euh, fële la fi jàkkaarloo ak euh, jumaa ji ñuy wax mosquée de la divinité